bokk internet yi topp Télé Sénégal euh, TV ak FTN Média ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen premier numéro yoonu pale yoonu pale nag tey euh, ñu di fa ànd ak miin palais xam palais lool waaye bëgg a dugg palais 2024 dootul ku ñuy présenté ci Sénégal madame euh, le premier ministre Aminata Touré maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay Adja Fatou maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp ñu am mbégte dalal la ci premier numéro yoonu pale nga jiite tey euh, mouvement pour l'intégrité le mérite et l'indépendance euh, di Mimi 2024 nga bëgg a dem pale en demi ci élection présidentielle bi ñu euh, dëgmal dafay jaadu nag sénégalais yi xam la ndax itam ku bëgg a jiite 18 millions yi ñu nekk faaw ñu xam yaay kan xool fi nga jaar xam itam foo ñu bëgg a jëmee balay loola yëpp nag dañuy ñëw ci sa jaar-jaaru ndaw sa jàng sa formation loonu ci mën a wax waaw defe naa ne Sénégal du ma fi gan quand mm. <laughs> ndax fukki at ba tey maa ngi yëngu ci administration doonoon fi ministre de la justice doonoon fi premier ministre jiite woon fi conseil économique social et environnemental eh, waaye ni nga koy waxee bon eh, dinañu am cawarte mm. waxtaan wax ci sa bopp nag du lu yomb. Ah. Eh, loolu du lu yomb mais sénégalaise la cent pour cent voilà saalum saalum sama baay salum saalum la sama yaay saalum saalum la ñoom ñaar ñëpp eh, Kaolack lanu lanu lanu gane àddina may maam fa ñu juddoo eh, voilà boo may seddaal daal foofu nga may boole donte mm. sax eh, suma maamaatu maam moom ma nga jóge woon fële ci Fuuta dëkk yi naan Njaayeen Pendaaw Eh, loolu nag yàgg na. yàgg na waaw ñu doon ko wax euh, Ousmane Ndiogu Sow. Hmm. Eh, voilà doonoon rakki Mbutu Sow mi sanc kaw la. d'accord waaye nag ay pël lañu woon doon dàq seeni seeni nag ba yegg si Saloum. Hmm. Eh, voilà hmm. donc euh, Saloum Saloum la. Saloum Saloum ci ak ci euh, moment ñoo la gën a marqué ci sa ndaw bi nga nekkee xale wala ci sa parcours scolaire bi ngay jàng. waaw man nag yàlla dafa def son son papa médecin la woon. sama yaay doonoon euh, sage-femme euh, donc ay fonctionnaire euh, ñoom nag dañ daan bouger sama école primaire yëpp maa ngi ko defee Tambacounda son papa moo doon médecin chef bi foofu te ca jamono yooyu moom kenn moo fa doon docteur sama yaay doon fa sage-femme nekkoon fa ak voilà ay promotionnaire am yu fa nekk barewuñu woon foofa personnel personnel médicale euh, am na soxna suñuy wax euh, Anna Gueye yal na yàlla voilà euh, xare ko ci àjjana yi gën a kawe ndeysaan bàyyee ko àddina yàggul motul six mois mm. amoon na amoon na presque cent ans je pense di yaayu avocat boobu Khoureychi Gueye ak euh, Khoureychi Ba ak ñoom Lamine Ba ak euh, ñoom ñëpp mm-hmm. euh, daanaka am na suñu parti enfance boo xam ne ñoo ko amandoo foofa ci Tambacounda mm. voilà maa ngi leen di nuyu aussi leen mm-hmm. jaale seen yaay doonte demoon naa fa jaaleleen leen mm-hmm. waaw Tamba nag fa laa ni ma ko suma école primaire yëpp école régionale la tuddoon. Mm. léegi nag moo tudd Baatu Jara. école Baatu écrire ki ma ko jàngal sax ma nga fa. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax. ñaan yàlla bàyyi ko fa lu yàgg bàyyi ko sunu kanam lu yàgg. Euh, muy euh, maître Cheikh Gueye. Cheikh euh, Fall. d'accord maître Cheikh mm. moom a jàngal voilà lire écrire kooku mënuma ko fay. xam mënoo ko fay waaw fa la lépp commencé ñaanal ko gudd fan bu ànd ak bu ànd ak wér. Mm. voilà maître à l'époque moom ma jàngal. Mm-hmm. lan nga dund ci lu particulier si si instant yooyu. foofu nag ci Tamba dama ci am souvenir boo xam ne fa laa xamee lan mooy dee. Mm. ndax suma benn rakk Euh, foofa lañ ko rob première fois boobu def naa maa ngi war a toll ci ay huit ans ak yooyu mm. lañ ma doon naxe nag mooy dafa amoon kër sœur bu soriwul woon foofu mm. ñu ne ñu ne waa kër sœur ñoo ko yóbbu voilà saa yu ñu rombaan ci buntu kër gi rek ma daal mm. laaj leen ana ana ana anamu ba ngay comprendre rek ne bon génn àddina doo ñëwaat dëgg la loolu it euh, doo ko fàtte donc sama benn rakk ak foofu ñu ñu denc euh, yooyu ay souvenir la moo tax mm-hmm. Tambacounda moom dafa am place bu spéciale. d' accord sama xol suma école. sa école yëpp sa cursus scolaire amul benn jafe-jafe amul woon lycée. d' accord voilà amul ñëw Kaolack nga xam ne fala laa fa laa bàyyeekoo mm-hmm. dëkk sama kër maam Alaaji saw Sow moom it yal na yàlla xaare ko àjjana. Mm-hmm. ak euh, astu Ndiaye mooy ñu sama yaay. foofu nag lañ dëkkoon moom nag opérateur économique bu mag la woon. Euh, jot na fa sax jiite mairie bi. Mm. Euh, Alaaji Aline Sow. d'accord euh, ba ñu tasee mairie bi moom lañ ko dékkoon. Mm. voilà foofu it am naa fay souvenir ma delluwaat fa nag. Mm-hmm. ba ca fa nga xam ne fa laa dëkkoon sama wetu kër maam jënd fa kër sancu fa. booba it voilà maa ngi bokkoon classe ak suma benn ndeysaan jarbaat suma benn càmmañ bu ñu naan Makoddu Fay moom it bu yàggul la fi jógee. gendarme la woon maa ngi jàllee voilà waa këram yëpp. Hmm. Abdou Karim euh, Sakho nga xam ne mu ngi woon fii ministère de l'urbanisme hmm. nekkoon fa directeur euh, moom it ñoo bokkoon classe euh, ak ki naan Petit nga xam ne mooy. meeru meeru Sokone waaw voilà <laughs> moom it ñoo bokkoon classe. d'accord après mu nekk fonctionnaire euh, Nations Unies. Hmm. foofu it da nga fay am souvenir après nag à partir de la cinquième ba terminale. Hmm. Euh, ci laa nekk euh, lycée Van Vollenhoven lañ ko doon wax. Hmm. mooy lycée Lamine Gueye. léegi foofu nag fa laa fa laa fa laa jànge ba am bac. d'accord voilà am fa ay souvenirs voilà. am fa pratiquer fa sport. UASU hmm. ak yu ni mel. dégg naa football nga waaw def naa sport yu bëri. d'accord euh, bokkoon naa ci gazelle de Dakar yi. Hmm. <laughs> voilà euh, def handball maa ngi félicité suñu Lions yi nga xam hmm. ne. Euh, qualifié wu qualifié nañ qualification bu historique. vraiment di leen féliciter. wax leen ne aussi supporter lañu. waaw saa yu sénégalais gagné rek dañ ci am fierté. voilà def naa aussi euh, après ci université. Mhm. basket ak yooyu ak judo. Mm -hmm. voilà ah oui oui oui. kon na la moytu demoon naa non non <laughs> ah, après euh, xam nga après boo jëmee mag. waaw physique. Mm. Euh, nday dal di ñëw ci bopp bi. ak moo tax damay encourager. Mm. vraiment tous les parents. ñuy bàyyi seen i doom ñuy sport. Mm. surtout seen doom yi jigéen yi. Mm-hmm. man jàpp naa ne bokk na ci li ma may fit. li la li la may fit li la forger di nga ñeme di nga ñeme coono. dëgg la nga xam ne mën ngaa perte tey mais boo góorgóorloo. Mm-hmm. Euh, ëllëg ak si biir mën ngaa mën ngaa gagné ba ma nekkee aussi Vanvo euh, defe naa ne euh, bon élève laa woon puisque amoon na prix concours général. d'accord ci économie. Mm-hmm. maanaam lépp lu jëm ci koom-koom après nag loolu laay jàng. ma demee ma demee France ak après ma commencé liggéey bi am njaboot soog a def suma doctorat hmm. donc loolu daal mooy daanaka. d'accord sama ndaw. d'accord tey euh, madame Aminata Touré mère de famille naka lay dundee ci biir këram boole kook politique bi. ah waaw man euh, suma famille nag mooy jiitu lépp lu may def ci àddina. la ma sa ma dundee parce que euh, dama jàpp ne loolay suñu première responsabilité. doo hmm. bëri bëri bëri activité. sa responsabilité mooy sa njaboot. Hmm. mooy sa voilà foofu la foofu ngay foofu la sa doole di jóge sax mm-hmm. waaw donc euh, góorlu naa ci macha allah ñoom it maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen voilà ci seeni seen kanamu njaboot sama taaw am na ay doom ah. voilà ak ñeneen ñaar ñi nag ñoom it di ñaan yàlla may leen soxna ak euh, borom kër yu baax mm-hmm. ay ñoomit it vraiment góorgóorlu nañu euh, voilà def jàng nañu mm-hmm. voilà te kenn déggu leen ci lu waru la nekk loolu dañ ciy sant yàlla bu baax mm. ndax yàlla rek mooy mottali lépp dëgg la il arrive nga togg ah, waaw waaw ba tey léegi léegi kay bari naa ñu mën a toggal boo mm. demee nag ba ami <laughs> goro ami goro gi sët voilà mais lu ma mm. sawar la woon surtout ba ma nekkee États-Unis parce que togg daf ma daan euh, lu ma bëggoon la di créer ay cafte yu beer ak yu mel ak bëgg aussi di invité bëggoon naa ko lool. Hmm. ko defee nit ñi daan ñëw euh, voilà bien bëgg ak bëgg voilà lépp loo xam ne lii Eh, ay cuuraay lay doon ay googu nekk femme sénégal ba léegi da ngay taal cuuraay di ah oui koy taal du man maa koy defa de <laughs> kon boo duggee pale cuuraay day continuer di ah mais dafa war a am fu nekk sax mais dañu war a dañ ko war a moderniser mm. ndax cuuraay nag am na noo koy defee du baax sax waaw day indi problème santé day indi mm. mais bu ñu amoon suñu def naa gis naa sax soxna yi di ko def léegi euh, yu bëri dañ koy jële bitim réew mais mm. war nañu am industrie boo xam ne bii da ngay piche piche rek. mu indi la xeetu cuuraay. Mm-hmm. loolu ci industrie bi lañ la bokk. xam nga doon nañ wax dinañ waxtaanee industrialisation. Mm. Euh, donc euh, maa ngi koy gis. ci kër yi man mi sax loo xam ne boo ko kiiwee day. xeeñ diffuseur yooyu diffuseur mm. yooyu. mais nañ ci former groupement yi. Mm. ñoom it ñu am seen industrie de l'encens. Mm-hmm. au lieu ñuy jëlee rek. Euh, bitim réew cuuraay bitim réew di ko indi. lan mooy sa plat préféré. ah loolu def naa wax naa ko ba tey mbaxalu Saalum. waxaat ñu ko <laughs> Saalum Saalum bi. Saalum Saalum la mbaxalu Saalum. ak euh, bu ànd ak euh, voilà ay. Mm. laxas ak ñoom mm. seen. Mm. ma jàpp nag ne suñu plat yi. war nañu ci war nañ gën a def promotion. gën def promotion yi parce que ñu ngi leen di xale yi sax yu bari xamatuñ ko. Mm-hmm. bon hamburger ak yooyu baax na. waaye nag aussi nañuy surtout plat yoo xam ne hmm. plat yu riche lay doon hmm. euh, te xëy na du cher cheraay boobu euh, loolu it aussi ministère de la santé hmm. war nañ ci def seen programme nutrition gën cee def promotion gis naa aussi lu may seetlu ay euh, ay jeunes souvent ay jeunes femmes la ñuy doon yoo xam ne dañuy valoriser suñu suñu produit am na kuy jaay laax am na kuy jaay nettari am na i fondé ma defal ko tuuti publicité. waaw <laughs> moom euh, daanaka bo boo da woote. ñu hmm. livré la sa hmm. ak yu ni hmm. euh, voilà yooyu ñun dañu am culture boo xam ne culture bu am solo la. waaye ñun dañ koy négliger. Ah. te culture boobu boo ci sukkandikoo rek mën nga cee indi koom-koom ba ñu ci bëri vraiment di ci daan seen doole ak yi ne mel Aminata Touré est-ce que am na heure tëdd heure yeewu ndax dañuy wax en général homme politique yi surtout bu ñu yeggee ci yenn niveau de responsabilité yi ñu nelaw nelaw du bari de hmm. nelaw du bari mais ay phase lay ba nga wàccee sax yaa ngi doon wax ne danga am dette de sommeil dette de sommeil <laughs> yoo a fay <laughs> waaw moom kay parce que ni ma la ko waxee hmm. da ngay doon euh, borom kër hmm. yor sa njaboot voilà war cee def nag sa kemtulaay kàttan te ah. nee naa la lu ëpp solo ci li may def sama àddina looloo ma ci solo hmm. ba noppi nga am ay wëllëre yi aussi eh, am liggéeyu njàmbur hmm. am eh, voilà say responsabilité eh, nit ñi aussi buñ la bëggee gis foog nga disponible hmm. ndax wax dëgg yàlla nag aussi politicien da ngay fexe nag ba ñu la bëgg a gis nga mën a toog di waxtaan ak ñoom en tout cas man comme ci développement laa doon liggéey wàcc à la base moo tax nga may gis ci tournée yeeg yooyu Euh, suba dañ ma naan ah loolu metti na te man dama ciy am bànneex parce que mhm. loolu laa jàpp ne mhm. voilà. mooy lu normal damay damay bëgg toujours di waxtaan ak nit ñi xam ni ñuy dundee. Mhm. Euh, ndax bu fekkee da ngaa bëgg jiite foog nga xam nag ni li ci xel ak xolu nit ñi. voilà donc loolu it dama ci dama ci bàyyi xel waaye nelaw yi ah après da ngay récupérer di nga récupérer boo du baax. est-ce que am nga heure booy tëdd heure booy yeewu. moom amul amul loolu amul ça rek. voilà mais boo sonnee sonn nag yaram bi ne ma ne la. dalul <laughs> noppal ma <laughs> euh, mais yooyu dañ ciy bàyyi xel. Hmm. récupérer ak di hmm. yaa ngi sport ba tey. maa ngi ciy def li ma mën. maa ngi ciy def li ma mën. Euh, mais loolu damay recommander aussi. Euh, Euh, vraiment surtout soxna yi. Hmm. voilà ñuy ñuy bàyyi xel ci sport te léegi dama gis ne koñ yu bëri day am club sportif yoo xam ne ay soxna rek a ciy nekk. waaw bëri na léegi ba loolu amul woon. Hmm. loolu vraiment war nañ koo wàcce nag ba waa villageois yi ñoom soxla woon ñuy sport ndax li ñuy liggéey. li ñuy liggéey waaw diggante tool yaa kër ga. ñooñu am loolu rek doy na sport. voilà ñun ñi hmm. dëkk ci taax yi. voilà miin oto yeeg yooyu. Euh, loolu it da ci da ciy am solo dam maa ngi ciy jéem a góorgóorlu malheureusement souvent temps bi mooy xaw a manqué waaye dama ciy bàyyi xel aussi. d'accord laaj bu bu soxal yow sa jëmm mooy dañuy wax ne da tàng da nga dëgër ah, yenn saa yi affaire yi day xaw a góore euh, ci ci liggéey bi ci euh, yeneen ak yeneen est-ce que dëgg-dëgg noonu nga mel wala loo xam ne la da nga koy gàddu rek di ko indi ci liggéey bi wala ci yenn condition yi mais après c'est une autre personne. Ah non non ak fayda rek laay def voilà. man samay xaritu daaw ñoom laa yor ba léegi changé wu ma euh, mais nag dafa am xam ne bu fulla jotee da ngay wane fulla ba mat sëkk voilà loolu da cee am solo ak ak fay. surtout ci biir góor ñi. a ah, surtout ci biir góor ñi góor ñi sax ñu boy seet moo xoolee troisième manda bi man maa fa newoon di xeex troisième mandat donc du affaire góor wala jigéen. Hmm. loolu aussi fokk ñu leeral ko. Euh, gis nañ jigéen yu am taxawaay lool damay fàttali jëmbat mbooj ndate yàlla ca waalo ñooñu ay waalo waalo lañ. ah ñooñu dañu téye woon seen i gox. Mhm. bind lettre fédère ne boo fi jaaratee voilà ñu déclaré. ñoo yow la moom la ñu def. Mhm. xeex ba tëdd. voilà jigéenu Sénégal dañu mës a am taxawaay. Mhm. voilà boo xoolee voilà personnalité féminine yi fi nekk. voilà ñu mës a am fullaak fayda la ñu. voilà góor ñi nag buñ lay xeex loolu la ñuy indi. voilà kii dafa dafa góore mais bu doon affaire troisième mandat bi moom dañ naan dafa jigéen parce que man maa xeex. <laughs> waaw <laughs> góor ña fa ñoom ñëpp. <laughs> voilà donc euh, noonu la gisee sinon bon. defe naa ne ni too ab naa toujours sympathique ah moom laa jàpp. Mhm. voilà ku bëgg voilà euh, euh, diree ak yu mais bu fulla ak fayda jotee ak liggéey moom du boole dara.